su ngeen ma dégloo ma way fi mag mu sell ta baax kookaa di sëriñ Modou Bousso Dieng bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi noo ngi toog fii ci xaayira pàkk bu tedd bi ndigal li bàyyi ko ci sëriñ Mountakha Mbacké xalif seneral de Mouride ñëpp di ko ñaanal mu yàgg fi te wér jaar ci sëriñ Abo Baraka Mbacké xalifa sëriñ dul Fadal Mbacké ak njabootu sëriñ Falilou Mbacké gépp ñëw ci seen doom sëriñ Jili Abdou Khadir Mbacke moom sëñ Moustapha Falilou ngir waajal bis bu mag boo xam ne ci la sëriñ Moustapha Falilou jotoon ngërëm ci sëriñam ba sëriñ Falilou Mbacke muy fukki fan ak ñeent ci weeru tamxarit mu war a daje ren ak le 24 septembre incha allahu taala fii ci pencum xaayira ma ciy woo nag mbooleem koo xam ne mbokkum sëriñ bi la di ko tàmbalee ci njabootu Cheikhul Khadim gi ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn sëriñ baa ngi ciy woon ñëpp. waaye di wooy itam mbooleem ko askanoo ci maam Maram ak noo ci mën a bokke di woo itam mbooleem ko askanoo ci sëriñ Busobe wala sëriñ Saabuso ak noo ci mën a bokke di woo itam ñi nga xam ne ñooy waa kër sunu maam sëriñ Mayasin Ummi ak mboolem bokki aafe yi ak fu mbokk mbokki rek ñëpp sëriñ bàyyiwul kenn bis bi ñaari ñaari bisi cant la muy bis bu ko jiitu muy le 23 bi nga xam ne nii ci la conférence sëriñ yi am ci lañ koy santale sëñ Fàllu ci nan lañ koy sante euh, jàng alxuraan ci bis boobu jàng xasiida def ay berne ci bëccëg bi bu guddi gi jotee dinañu def cérémonie ren jii tamit ñu tuddee ko koo xam ne ku bokk ci kër gi la dëkk fii mun sëñ Aliou Ndiaye Guédé ren dañoo tànn euh, tem boo xam ne bu am solo la ci waxtu wi ñu ne muy euh, lan mooy responsabilité am ci tànn gi mu tànn kilifaam kon daal ñu ngi ciy woo ñëpp le 23 euh, bàyyiwuñ kenn. ña ci jiitu nag mooy dongay tarbiya yi yi nga xam ne ñoom ku nekk sëñ Modou ci nga leen fekk kon nag woo ñu ngi woo mbooleem fub daayira ne ak ku fédération ñu ngi lay woo ci bis bi sëñ Modou nee na mi ngi woo ñëpp ci daay bi te di leen soññ turandoo yi sëñ Modou nag bu ñuy wax màggalu Seex moom Moustapha Falilou ñoom ñoo ci war a jiitu kon nag ñu ngi ciy woo ñëpp tey soññ ñëpp ca lañ daa def kenn ku ne la nga daa def ñoo ngi lay wax nga defaat lu raw loolu la nga daa def képp ku yaakaar Seex Moustapha Falilou tam ñu ngi la ciy woo kon nag ñu si soññaat fédération daayira yi nekk ci Ndakaaru yëpp ak sopp yàq xar yi la ñu sëñ bi digaloon sëriñ Fallu nga la waa nañ ko fa ci bisam bii nañ jéem a dajaloo ñun ñëpp te loolu ab soñña la ren def ko waa bu mag a mag a mag jóge Padoa fu ñu romb ñu xam ne tey la bisab Seex Mustafaa Mbàkke ba ñëw fii ci euh, kii nga xam ne moo ko fa toogal di Seex Jili euh, doon loo xam ne it ñu ngi koy def ci ndigalul sunu kilifa mu di sëriñ Mouhamadul Mountakha Bassirou mi xalifa général di Murit ak ndigalul sëriñ aboo mi nga xam ne moo toog jotaayu Cheikh Mahamadou Fadal sëriñ bi nag di ci woo ñëpp woote bi nag dañ ciy jiital ñi nga xam ne ñoom lañu ñu bokkal sëriñ Touba muy waa kër sëriñ Touba tàmbalee ko kër sëriñ Modou Moustapha ba ci kër seex Mouhamadul Mourtada kër soxna Fadja ba ci kër soxna Maymunatu Mbakke ñu ngi ci woo ñëpp di ci woo itam mbokki sëriñ tubaay yi bàyyiwuñu kenn képp koo xam ne daal askandoo nga ci maaram sëriñ baa ngi la koy sëriñ baa ngi la koy yëgal di la ko fàttali itam bu baax di ci woo itam mboolem seexi Serigne tubaa yi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ Serigne Touba ñooñu sëñ baa ngi leen koy yëgal këri diine yi bàyyiwuñu kenn Serigne baa ngi leen koy yëgal di ci soññ bu baax it daare kaamil yi ndax bis bi looloo ci ëpp solo daare yi nañ ko daan defee ñi ne ci réew mi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci bitib dëkk bi nga xam ne at mu jot dañ ci daan jàng lim yu bëree bëri ndax bis bi bisub ñaan la kon sëñ baa ngi leen ci soññ di leen ko fàttali Serigne baa ngi koy yëgal tamit ki nga xam ne moom la yàlla teg réew mi ci loxoom muy le président de la république ak premier ministre ak ministre de l'intérieur ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci gouvernement bi ñëpp bàyyiwuñu kenn. di ko yëgal mbooleem it parti politique yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal ndax fenn fu ci nekk rek sëñ bi am na fa njaboot ñoom it ñu ngi leen ko yëgal bu baax. di ko yëgal préfet bi nga xam ne moo nekk Mbacké ci département bi ak sous préfet ak gouverneur de la région de Diourbel. maire Touba mu di Abdou Lahad Ka moom tam ñu ngi ko yëgal bu baax. ñi ñëpp di séntu ñëpp. di ñaan yàlla sunu borom ku fi ñëw suñu borom faj say aajo.